الحمد لله الكريم ذي المنن على اتغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اتغالي بفروض وسنن سكت لأنه قد ساقني لوطن به نفع ما آقني وقادني إليه بتخلي من بعد ما هذب بتخلي وجرني في إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قضي أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى fi sirri wal jari yakunu muqtada wallazi ajarani almadina bi amri rabbi fasana dina wasilati li maliki rafii muhammadin xayril wara shafii wa alihi wa sahbihi nujumi القائل النفوس والرجيم عسى وإن اليوم يا وهاب gayraka fi daarini laa ahaabu mooy exposition bi ngir leeral liggéey Touba ca kanam bi moo nekk nii euh, li mooy structuration bu Touba ca kanam mooy kii bi ni mu demee nii wax Touba ci kanam ak commission yi mu am yooyu yëpp moom moo nekk nii léegi dañoo def na commission bu ci nekk ñu defal ko tableau boppam wax ay réalisation ak yi nga xam jot nañ ko def commission bi mooy commission administration nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu administration diggante Touba ci kanam ak état bi diggante ñoo koy yor ndax yi ñoom bi mooy mooy commission des finance lépp lu jëm ci commission finance moo nekk commission bi nag daa am ñeent sous commission commission gestion des fonds commission carte et membre ak achat nga xam ne lépp luy koppal Touba Ca Kanam liy dugg ak liy génn ak li ñuy dépense lépp commission bi moom moo ko moo ko yor moo tax ñu bi dee commission bi nag mooy commission environnement wàllu jëmbat garab yi ak fexe ba dëkk bu seel yi mën a set ñoom ñi lañ ko dénk membre yi ñoom ñoo nekk nii waaw bi nag mooy mooy commission étude et contrôle ndax Touba Ca Kanam li ñuy réaliser li ci bëree bëri day laaj ñu jàng ci wàllu xam-xam commission bi nag ay ingénieur ñoo ci nekk ak ay borom xam-xam yoo xam ne bu ñu mën a am ko waree réaliser ñoom lañ koy jox bu ñu ko étudier nag ba ne baax mën a commencé jëmbal moo nekk réalisation ñoo ñoo nekk nii commission bi mooy scientifique ak culturel nga xam ne lépp lu jëm ci li ñuy réaliser ci wàllu daara yi ak ci wàllu xam-xam yëpp commission bi ñoom lañ ko jox ñu euh, ñuy def liggéey bu am solo tamit ci daara yi ak former gi ñuy former sëriñ daara yëpp ñoo ko yoral Touba ci kanam ci ci liggéey bi donc commission bi mooy réalisation lépp luñ jox commission étude bu ko étudier ba mu baax commission bi lañ koy jox ñoom ñu war koo réaliser moment bi ñu koy réaliser tamit étude dañuy ñëwaat xool ba xam ndax li ñuy réaliser jaar na yoon wala jaar yoon Eh, bi nag bi mooy commission sante nga poste santé bi ñu defaloon ak ambulance yi ak yi ñu ak aide yi yëpp commission bi ñoom ñoo ko yor muy commission santé te président Fallou Ndiaye moom moo ko jiite. Eh, commission bi mooy commission communication lépp lu Touba ci di réaliser ñoom ñoo ko yor di ko communiquer donc membres yi ñoo nekk nii ay mission am ak yëpp ngi noonu. commission bi mooy commission massification lépp lu jëm ci yaatal liggéey bi ci biir réew mi ak bitim réew mi ñoom ñoo ko yor daanaka bis bi sax li ci ëpp ñoom ñoo ko doon dox ngir yaatal liggéey bi ak leeral taalibe yi nga xam ñoom ñu ngi koy liggéey donc coordination diaspora ndax dañoo gis ne membre yi nekk ci biti dañoo xaw a bëri moo tax ñu nos leen nos goo xam ne ab coordination lay doon lépp lu ñu nos ñoom ñoo koy nos ak membre yi nga xam ko seq. yow mi la sama yu baax bi bi nag mooy mooy mooy mooy bilan financier yi nag moo nekk nii 2017 2018 2019 2017 ñi nga am 284 millions te 2018 588 millions nga gis dañuy gis ne Touba ci kanam lu ñu gën a dem rek ay chiffres am di gën a di gën a jëm ci kanam ci gàttal daal li nga xam ne moom lañ ko defoon ci exposition pour leeral ko bokk taal bi. صل على أبيهما والآله وسابي ولتجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وآل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والدق جسماني في قبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أبدي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى وتكفي عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل إني عقير معدم زليل فدغنني بك وابلي الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليأب خير منن وأملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم أتاكن سالكا خير لقم يا عدل يا مدل يا من يؤمن أنت مجير يونا يا مؤمن فابدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد أن يرى جميع أهل ذا البلد وجد إلهي مكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وسليا علي أفضل سلام وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من قدمني أوزارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلا يفتق هدى ومالا وكل من صدمني أو لاما فابلغ التوبة واستسلاما فكل من هزا ذنوبيا فليقلب قلبه يا ربي وتكفني أذى جميع العالمين وتكفي مزايا يا رب امين وجل بنائي بناء عافيه يجرني الى خيور صافيه